bismillaahi rahmaani rahiim mbokk ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen ñëw ci suñu bindu Tazawudu Sixaar nga xam ni si Ahmadu Bamba moo ko def te ñu war a ñëw ci suñu bindu juróom-benneel war a ci bunt bu njëkk ci Tazawudu Sixaar muy baabun fii aqsaami diin kon loolu mooy bunt bu njëkk bi newoon naa la ñetti bunt la ko séddalee. bu njëkk bi imaan la bi topp mooy islaam bi ci mooy ihsaan bii nag mooy bu imaan bi moo mu ne baabu ndia bunt la fi aqsaami diini ci xaaji diine ji baabu ndia bunt la fi aqsaami diini ci xaaji diine ji mu ne aqsaamu diini rabbina xaaji diine sunu boroom ñett lan aqsaamu diini rabbina xaaji diine sunu boroom yi ñett lan ba ca njëkk al imaanu mooy gëm nga wa baadahu nee na ca ginnaaw ba al islaamu lislaam wal ixsaanu ak ixsaan waa nee na xaaji diine sunu borom ñett la ba ca njëkk mooy imaan ñaareel ba ca topp mooy islaam ñetteel ba mooy ihsaan ñëwoon na la imaan mooy li nga xam ne mooy mooy tawxiid mooy mooy li nga xam ne tawxiid moo koy représenté islam fuqaha di ko représenté nekk li nga xam ne tasawuf moo koy représenté ñett yooyu lay jàngale ci téere bi mu lay jàngal ci buntu bii nag dana gudd lool moom mooy imaan moo tax ma ne imaanukum seenu gëm yaa ayuha sixaaru yéen ndaw ñi bi man ca buur ba nga xam ne lahu ñeel na ko asixaaru ndaw ñi wal kibaaru ak mag ñi yéen ndaw ñi ni ngeen di gëmee yàlla yàlla mi nga xam ne moom moom ndaw ñi moom mag ñi nii ngeen koy gëme ni may bëgg a wax an tuuminoo mooy ba ngeen gëm billaahi ca yàlla wal malaayika ak ya wakut bi haadi saalikin ak téere yi way jubal aju soobu ji góor saalika ak aju soobu ji jigéen ni ngeen di gëme yàlla mooy da ngeen di gëm yàlla sunu borom gëm ay malaayikaam gëm téere yi jóge asamaan wàcc fii téere yi yooyu dañ la ko limal su ne laa téere yi jubal góor ak téere yi jubal jigéen mooy téere yi wàcc ci yenante yi noonu wa yow bi ak bisam ba al bay aji mujj gëm bis bu mujj bis bu mujj nag buñ ko waxee nekku ne moom mooy bis bu yow man xeexam déedéet mooy bis bu mujj ci àdduna bi ba àdduna ay bis la samedi dimanche altine talaata àllarba alxames ajjuma noonu muy wëree dana ñëw ne ba ca bis bu mujj ba nga xam ne ñëppay waatandoo bisu mujj boobu la wax ne danga ko war a gëm warusli ak yenente ya alkiraam ya di way tedd ni noonu yenente yu tedd yi tamit nga gëm leen wal xaddari ak dogal ba alladi dogal ba nga xam ne ya juudu dana tabe wala nga ne ya juudu dana maye bil maram ci càkkutéef dogal yi nga xamantene bi ne lu waay am rek nit di sàkkule moo koy may dogal boobu dogal suñu borom boobu da ko wara a gëm yii mu la limal yépp nag benn bu ci nekk dala koy détaillé benn par benn jàngale ko buntu par buntu ba ci njëkk mooy antum ne billahi ni ngay gëmee yàlla moom lay njëkk moo lay njëkk di la ko tàmbalee di la ko jàngal nii moo tax mu ci teg imaanukum bi rabbikum tasdiqu bi annahu wujudu xaqiqu bu noppee noonu la ci tege malaayika yi noonu la ci tege téere yi noonu la ci tege bisub yomal bisub mujj ba noonu ci tege yenent yi noonu ci tege ndogal bi kon defe naa ne mën nañoo yem foofu ñu baamtuwaat ko baabun li ab bunt la fi aqsaami diini ci xaaji diine ji aqsaamu diini rabbina xaaji diine sunu boroom al imaanu mooy gëm ga wa baadahu nekk na ci ginnaaw ba al islaamu lislaam wal ixsaanu ak rafetal ga imaanukum seenu gëm yaa yu sixaaru yéen ndaw ñi bi man ci buur ba nga xam ne loxoo ñeel ko asixaaru ndaw ñi wal kibaaru ak mag ñi antu mino mooy ba ngeen gëm billaahi ca yàlla wal malaayika ak malaayika yi wakkut bi haadiyi saalikin ak téere yi way jubal aji soobu ji góor saalika ak aji soobu ji jigéen wa yow mi ak bisam ba al aaxiri ba aji mujj wa rusli ak yenente ya alkiraam ya di way tedd wal xadari ak dogal ba alladi dogal ba nga xam ne dana tabe bil maraam ci càkkutéef la kon tënk bi mooy rek diine sunu borom daroon ñetti xaaj mu ci njëkk mooy iman ñaareel bi mooy lislaam mu ci topp mooy ihsaan lii nag tàmbali la waaye lenn ci nekk daana ko gën a kon nit ni mu war a gëmee yàlla dëgg te yàlla nag mooy gëmam mooy ni ko sëriñ waxee da ngay gëm yalla gëm ay malaaykaam gëm ay téeréem gëm itam li nga xam ne mooy bis bu mujj ba gëm itam li nga xam ne mooy yenent yi dogal bu yàlla sunu boroom lenn lu ci nekk dana la ko détaillé jàngal la ko